non non non non non non bu leen yàq soirée bi dama ne bu leen yàq soirée bi bu leen yal na la yàlla fay sa xol rek man la ñaanal sunu fay la sa xol rek loolu loolu war a wax bu leen yàq soirée bi bu leen yàq soirée bi barke balaas na balaas na bu leen yàqu soirée bi bu leen yàqu soirée bi barkaal xuraanu karim